li ak euh, travail bu avancé euh, vraiment yalla def ci jàmm ñom ñaan ñëpp ñu accouché ci jàmm seen bébé yi nekk ci jàmm wa alhamdulilah dal tout s'est bien passé kii am doom bu goor kii am doom bu jigéen. Ah, yéen tay lan ngeen yëg yeen personnel bi. ah vraiment content nañ ñun ñëpp on a jubilé tout le personnel les médecins les sages-femmes <laughs> tout le monde vraiment wa sante yalla alhamdulilah. mbégte bu rëy laa yëg euh, parce que nima ko waxé Dakar la nekkoon fa laay liggéeyee après ba ma jëlee congé je suis venue ma ñëw euh, près maman donc euh, ma ñëw fii également ñu assisté ma bu baax a baax euh, di leen remercier ñoom ñëpp personnel bi yëpp qui ma accueillir sage famille. vraiment seen liggéey def nañ ko maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax. lan nga en tant que yaay nga am sa première donc surtout nga am ko fii mu nekk bébé de l'année. Hmm, mbégte. Mhm mbégte mbégte bi nga xamante ni euh, mënuma ko mënuma ko décrire loolu laay wax waa mbégte la rek. waaw initiative bi dañ nañ ko def pendant sept ans boobu j'étais élu au niveau de la commune de Thiès Nord yàlla dogal na ren ma def ko ci initiative boo xamee ne ce sont les dames de Thiès foofu laa jëlee édite ci moom laa jëlaatee beneen initiative pour dimbali waale ñi nga xamee ne. dañuy néew doole ak ñi nga xamee ne parce que hôpital régional dafa englober la région de Thiès. Euh, léegi si wàllu boobu seen structure bi tey ñëw fekk bébé la am ñaari bébé loolu ban. ban moom vraiment dañoo am kontaan te loolu. parce que ñun dañoo nekk ay yaay xam lu accouchement di jariñ mhm. tey bu ñëwee fekk. suñuy ñaar suñu ñaari ji moo nawley jigéen mm-hmm. am ay bébé juddoondoo même heure mu nekk loo xamee naal mbégte moo xamee ne kenn xamul fan la yem ñu ngi nuyu waa Thiès yëpp di nuyu waa hôpital régional di souhaiter waa Thiès yëpp meilleur vœu di ñaan yàlla at mi yàlla na dàq ci at yi waaye bu neexee ba dàq yàlla na ci cees gën a bànneexu yàlla na ci Thiès gën a bànneexu ubbi xéewal yi ubbi lépp Euh, di nuyu aussi tamit suñu ñiñ fi fekk suñu moroomu jigéen yi ñoom ñi nga xam ne tey macha allah ñoo jaar ci métit métit bii yàlla na ci wér topp euh, bébé yi ci juddu tamit yàlla def leen ay mag may leen fan bu gudd ak wér ba ñoom tamit ñu koy defal seen ay moroom di wax ne rek ñun ñoo nekk les jeunes dames de Thiès les jeunes dames de Thiès nag dañ ko taxawal rek uniquement pour jàppale suñu ay moroomu jigéen parce que ku ne xam ne ne jigéen mooy yaay jigéen mooy lépp jigéen moo sonn ci kër yi moo nekk fu ne ca bu bu coono jotee jigéen lañ koy teg coono yëpp jigéen ñee koy daj ñu taxawal nag ne pourquoi pas duñ taxaw xeexle jàppale suñuy moroomu jigéen ba métti di ñuy teg jigéen ñi wàññeeku loolu samp les jeunes dames taxaw les jeunes dames nag bu taxawee dañ ciy gis kanam bu nekk mën na si ñëw parce que en dehors politique la moo tax ñu ne les jeunes dames kii commune nord la dëkk Mantoulaye maa ngi ànd aussi ak Soxna Marie ak euh, suñu yaay Ami Ndooy Euh, parce que li ñu taxawal tey du suñu doole du lu ñu mën mais dañu am ñu ñu jàppale ay bonne volonté yu baax yu dëkk Thiès yu ñu jàppale ba tax ñu mën lii tey ñu mën ku gis li ñu fi indi gis ngeen valise bii xëy na nit ñi dinañ tàmm def valise yu ndaw gis ngeen valise bi ñu indi indi nañu aussi li nga xam ne mooy berceau bu mag a mag mënuñu ko monter fii di ko wane indi nañu aussi moustiquaire indi nañu aussi yu plat bi indi euh, euh, paan bi bëggoon nañ ci teg. mais li ñu pare woon pour teg ko tey dañu am aussi beneen bébé bu juddu minuit pile euh, jaxaaw itas yaakaar baaxul ñu wootee foofu la ñuy dawaat nii pour mën ko jox li nga xam ne mu mën cee jënd dara parce que ñun ñëpp li ñuy wax rek comme taxawu jigéen moo ñu tax a jug ci loolu rek la ñu nekk mais mënuñu pare ci du ñu remercier ñi nga xam ne duñu jël seen loxo jàppale ñu ci bis bi ku mel ne DG Pape Doumbouya gis ngeen li mu def jël équipe am jox ñu mais jël poche jàpp ci euh, euh, Alain aussi bu domaine jël loxoom jàpp ci Babacar Wade ah Massir Massir Massiré bi nga xam ne moom moom moom dalal bi Presta ñoom ñëpp dañ si jàpp di ku mel ne ñoom Lamine Diallo suñu frère yooyu suñu frère Abdoulaye Dieye moom jàpp ci macha allah jaarale ko ci loxo euh, Mouhamed Mbaye macha allah ñoom ñëpp ñu jàpp ci fat bu bu ñu bëggee ñëpp sax mën nañ fi bañ a jóge mais Thiès yëpp jàpp nañ ci tey ku mel ne suñu frère Cheikh Ndoye daf ci jàpp ba pare yëkkati ay mbubu solal ñu mbubu yaa ngi nii euh, mantu bu ñu ko mënee wane. def ne won nañ ko sol ci bis bi ndax choona biñu nekké pour bis bi ñu mën taxaw mais demb ci samedi bi lañ ko jot mais di wax suñu frère Cheikh ni ko mbubb yaa ngi nii bu ñu dañ koy mël fawoo sax ñew parce que li lañu solal man ak sama sœur Mantou mu ngi ni rafet ba bëgg dé ma sha allah pour ñu sol ko mëna ñew ci bis bi li mo waral ñu indi ko pour mu gis kado bi xamné ne neex nañu mais dafa jamp ba ñu ko sol mais képp koo xam ne dugal nga ci sa loxo en tout cas ñu ngi lay remercier bu bah baaxa bah baax bàyyiwuñu kenn Théodore Ndion macha allah ñoom ñëpp njuga ah maane Mané macha allah ñëpp jël nañu seen dërëm ak seen ñaar dërëm def ci. parce que li ñu taxawal bu dee 100 francs nga ñu jox sax ñun dañ koy ndamoo le fait que ñu ñëw nga accueillir ñu yëkkal sa 100 francs jox ñu rek ñun dañ koy ndamoo. suñu frère Diatara ñoom ñëpp ñoom Daouda Faye bàyyiwuñu kenn Babacar Wade nag dañ koy gërëm moom tamit du ko beral ngërëm parce que lu ñu yëkkati rek loxoom daf ci nekk di ci jàpp bu baax a baax a baax xam naa su ma fàttee quelques tours sama sœur Mantou dina ci ñëw mais ñu ñaan yàlla bu ñu fii ñëwaat déwén yàlla may ñu fan bu gudd ak wér ñu amaat ay bébé mais indi kado yu ëpp lii parce que bi ko mairie bi di def ba mairie pare ñun bii mooy suñu première ñun édition ñu def ko mais mairie bi ànd ak Mantoulaye def na ko durant sept ans la ko def mais bi ñu jógee ci maire bi bi mooy suñu première édition ñu def ko kon ñu ngi ñaan yàlla rek fekke ko at yu baree baree bari ba les jeunes bu ñuy ñëw kenn du fi xaj macha allah. di masawu tamit euh, ñi nga xamee ne mooy maman bébé yi di leen wax yàlla na yàlla leen defal jàmm bañ dellu ci seen kër. ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci barke sëñ Fallou suñu wasila euh, di remercier aussi suñu secretaire municipal bi parce que aussi tamit. moo nekkoon secrétaire municipal à la mairie de Thiès Nord mu nekk nit ku baax nag initiative bi biñ koy jël dañ ciy waxtaan ak moom mu ne ma loo nekk rek maa ngi ci kon tey bu taxawee fii dañ ko war a gërëm remercier ko jaajëfal ko beneen bi aussi tamit euh, may présenté wu sax moo waroon a jiitu maa ngi tudd madame Ajaratu mënatulaay Diouf que conseillère départementale au niveau de la commune de Thiès euh, Yalla dogal na comme sama sœur bi num ko waxé bima conseillère au niveau de la commune de Thiès Nord dama doon organiser bébé de pendant sept ans Yalla dogal na Thiès Nord presque tous les postes de santé euh, doon nañ fa def li waye Yalla dafa dogal ñun les jeunes dames de Thiès bi moy suñu première édition parce que dañu japp né jigéen. dañ ko war a jàppale parce que néew na doole néew na kàttan te li ñu mën a jaamoo yàlla mooy action yi waaye action yi nag ñun mënuñu ko ay bonne volonté ay nit yu baax yu nekk biir Thiès ay kilifa ñoo ñu jàppale ñoo tax tey lii mën a am waaye nag ñu beral nag suñu frère Pape Doumbouya wax ko mention spéciale parce que ki indi rajoom ànd ak ay ñoo xam ne ñoo koy liggéey ci service am ku mel ni suñu sœur Marie ak tata am amindooy mu ñëw ne àndal leen maak les jeunes dames de Thiès ñu ngeen teewal ma ca bés ba kon kooku mënuñu koo fay ñu koy ñaanal yàlla rek rajoom bi euh, mu yokk ba nekk man ba télé ba nga mu télé bi tey yokk yokk ba fu mu nekk nii ba raw yeneen tele yi sax pour pourquoi pas loolu lañ koy ñaanal di nuyu bu baax waa hôpital régional di euh, seet suñu yaay yi suñu nouveau-né yi ñu ñaanal yàlla gudd fan ak wér ñuy yàgg fi lool ànd ak wér dem bay euh, teral seen way jur yi ñu dund ba incha allahu rabbi bu déwénee bu ñuy ñëw mu gën a dàq lii gën a ëpp lii Euh, sama sër yi ma àndal maa ngi leen di nuyu bu baax Mantu ak ndey Sall initiative bi rafet na lool macha allah ñaan yàlla déwén jigéen Thiès yëpp mën ci bokk. remercier suñu PDG euh, Prestige Groupe muy monsieur Pape Doumbouya en même temps di président mouvement Thiès ca kanam. ci loolu lay dox wax dëgg yàlla sargal ni jigéen ñi ànd ak jigéen ñi association yi jigéen ñi ci nekk mu ngi leen di toppatoo di ànd ak ñoom ñuy ñaan yàlla la am zone nord law law law ba dem ci Ceeskaay yëpp grâce à Pape Doumbouya et son groupe macha allah sant leen gërëm leen ba déwén ak jàmm incha allah merci beaucoup.